asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu seen info ci xibaar yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax baax seen taxawaay ak seen liggéey bu rafet tey nag ñu ngi fii ci Touba Daaru Xuddoos ci màggalu euh, gii nga xam ne moom lañ amal màggalu Seexu Xadim bi ñu yemook dimaas di suba la màggal ñu nekk fii ci Daaru Xuddoos ak ci benn programme bu mag boo xamte te ni Forever Living Product moo fi ñëw ci biir màggal gi ànd ak suñu manager bu mag a mag a mag a mag a mag di manager boo xam dafa qualifié fan yi lu ñuy wax Safir kon ñu moom lañ fas yéene dalal nag tey jii ci tuuba ànd ak moom ñëw pour ànd ak nit ñi waxtaan ak ñoom ci wér gi yaram gi nga xam ne mooy Forever Living Product entreprise bu mag boo xamante ni def na ñeent fukki at ak juróom ci àdduna bi ren lañ ko doon féete def ñaar fukki at ci Sénégal def fukki at ak juróom-ñett ci euh, Mali. def ko Mauritanie itamit def ko Gambie def ko cap dëkk yooyu yëpp Sénégal tijji leen ñu ñëw ci dëkk bu sell bii ngir yaatal liggéey boobu ngir mu mën a yaatu bu baax a baax a baax kon dañ leen di bàyyeek suñu manager bu mag boobu muy Sokhna Mame sa Sakho mu présenté wu wax ci boppam wax ci liggéey bi wax ci liggéey bi itam fi mu ko bëgg a ànd ak réseau bi nga xam ne moom la àndal muy réseau xéewal pour ñu mën a dem ca kanam kon Sokhna Mame sa jërëjëf bisimilah. jërëjëf euh, maam Serigne Sylla asalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah alhamdulilah rabil alamin euh, ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen yàlla boole ñu ko yal na ko yàlla def si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa macha allah. seen info seen info seen international euh, bi internet ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di jiital ci nuyoo bi seen directeur Mouhamed Mountakha Sakho macha allah. Seydina Omar ñu ngi lay siyaar Abdal ñu ngi lay siyaare ci bis bu tell tedd bi macha allah ah di nuyu mbooleem réseau xéwal rawatina nag macha allah équipe bi nga xamante ni ñoom laa àndal muy ay jàmbaar macha allah. Eh, commencé ko ci maam Serigne Oustaz Youssouf macha allah Abdoulaye Mar ah macha allah suñu Serigne suñu xarit suñu soppee soxna Assou Mbacke moom sëñ Baara macha allah ajaratu Anta Dramé macha allah soxna Roxeeli ak eh, ajaratu Aminata eh, eh, Seck macha allah ayet Adja Aida Sadio macha allah sama doom yu baax yi sama xale yu góor yi nga xamante ni infatigable la du ñu sonn mukk ci li ñu nekk ànd ceeg Pastef lool nag fa ci tasaare gi nga xamante ne ñu ngi koy tasaare ci fii ci màggalu Touba Mbàkke gi ci dëkk bu sell bi dëkk bu tedd bi di ñaan yàlla defal ñu tawféex ñu yàgg ko màggal te lépp lu fi aajo bu fi waaye indi rek yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla may ci barke Seexul Xadim macha allah. Euh, euh, xale yu góor yooyu nag ki ci jiitu di Mouhamed Madiop mbay macha allah ak euh, sama doom Mouhamed Fall sëñ Khadim Fall macha allah ñoom ñëpp tey ñu ngi takk taxaw rek pour tasaare Forever Living Products bi nga xamante ni moo nekk fii ci senegal ñu ciy liggéey takk googu ñu def ak ànd googu ñu ànd booloo nekk aw say macha allah moo waral tey ñu naan Mame Bousso Sakho Manacel Safir Sénégal. muy nekk numéro 2 Afrique macha allah kon loolu ñu ngi koy sante yàlla bu baax di julli ci yonent bi di ñaan yàlla balaa màggal bi di ñëw ci wesaare gi ñu koy wesaare muy njëriñul askan wi yëpp képp ki nga xamante ni teew na fii rek balaa màggal gi di ñëw na nga nekk manager ba tegal beneen grade ci kàttanu suñ borom yal na ko yàlla def ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam macha gi bis la bisub ndaje la bisub saafuwante la bisub euh, macha allah retrouvaille la macha allah nga xamante ni ñëpp a ngi bëggante ñëpp a ngi soppante ngir kan ngir seexul xadim mi nga xamante ni tey moom moo liggéey liggéey bu rëy bii ba tax ku ne bëgg fee ñëw ku nekk ñëw fi ngir faj sa sa aajo faju ku nekk ñëw fi ngir cofeel gi nga xamante ni amoon na ko ci yonent bi macha allah ak liggéeyal gu mu doon liggéeyal borom bam macha allah moo tax tey ku nekk bëgg ko ndax suñu borom yonent bi mooy ku ma bëgg rek ma bëgg la nga ànd ak man ba aljana ku bëgg yonent bi nag macha allah boo ko bëggee ànd ak moom mu ramu la ba aljana macha allah kon looloo tax tey ñu ñëw fii euh, ah, ah Seydina Omar euh, fas yéene nag tasaare Forever Living Products comme ni ko Serigne waxee am na ñeent fukki at ak juróom ci àdduna bi 45 ans d'existence am na euh, ci at mu ngi ci lu ëpp téeméeri réew ak juróom fukk 160 pays dans le monde entier. su ma la ne mu ngi ci 160 pays dans le monde entier macha allah wax na jàppal ne mu ci àdduna bi ba mu daj ndax àdduna bi weesuwul lu mat ñaar téeméeri réew te réew yi bëri réew réew mu ne dafa am ay réew yu mu àndal tey fore fore Forever Sénégal macha allah buñ ne drapeau Sénégal moom moo couvrir Mali Gambie Mauritanie Bissau Guinée ak Cap-Vert ak euh, Mauritanie dëkk yooyu yëpp tey ci Forever Sénégal lañ bokk macha allah demee ba France am na yeneen dëkk yu mu àndal boo demee ba sud Afrique am na yeneen dëkk yu mu àndal te dëkk yooyu yëpp foo ci dem da nga fa fekk euh, direction danga nga fa fekk euh, euh, macha allah ay office yoo xamante ni Forever ko fa def moi macha allah kon drapeau Sénégal moom la ñu moom moom la ñu wax moo bokk ci 160 pays 160 drapeaux yi nga xam ne moo nekk ci monde entier bi mais Forever ci boppam moom mu ngi ci àdduna bi ba mu daj amul frontière fenn. soo lëkkaloo lëkkaloog société bi nag macha allah lépp li nga bëgg ci sa yaram bu fekkee ne da nga lëkkaloog société bi ngir wér gi yaram yàlla suñu borom dana la ko defal ndax ay complément la yoo xamante ni soo koy jëfandikoo lépp lu nekk sa biir yaram da koy raxas dina raxas sa deret maanaam dana raxas rein yi dina raxas intestin yi dina raxas poumon yi dina raxas peau bi muy produit yi ngay gis fii yëpp rawatina nag aloe bi nga xamante ni suñu baas moom la mooy aloe vera boobu dañ ko bay ci bayit mu set sell macha allah mu am ay at soo ko am ñeent yi ñu soxla pour defar produit bi te arrosé wuñ ko tafu tàng lañ koy bay suñ na aloe nag nga ne aman ah, sama kër am na aloe vera mën naa koo jëfandikoo déedéet ndax aloe vera am na lu mat lu ëpp lu mat daanaka ñaar téeméeri xeet wala ñetti téeméeri xeet ak juróom-benn fukk xeet yooyu yëpp aloe vera la mais yéen ca mën a naan juróom la ci juróom yooyu nag ba ca gën a baax ñu koy wax aloe barba den six milaire moom la forever di defar aloe barba den six milaire moomu nag moo am lu mat te 200 éléments composants 12 vitamines 75 nutriments 18 acides aminés ak 20 minéraux éléments nutritifs yooyu nag nga xamante ni moom la suñu yaram soxla ba tan waroon koo amee ci li ñuy lekk te yàlla dogalu ko ci lekk yi fi mu toll nii ndax nañ koy bayee ak nañ koy toggee macha allah moom la yàlla def ci gàncax gi ñuy wax aloe vera aloe baba dañ si similaire ah moo tax na tey ferñeent yooyu nag boo koy boo koy jëfandikoo macha allah mu raxas sa yaram mu ne moo tax mu ne purifiant la. régénérateur de solides la ah macha allah antioxydant la antibiotique naturel la somme de fer la lactatif la macha allah hydratant la. moo tax moo loolu nag su ma la ko bëggee waxal ci olof mu ne dafay raxas juróomi organes yi nga xam ne moo nekk ci doomu aadama dafa dugal waaye waaye mu fay génnee muy rein mooy moom la ñuy wax. xeeru ndigg yi mu ne da koy raxas intestin yi mooy mbàq gi da koy raxas poumon yi mooy xësër gi da koy raxas macha allah cerveau bi mooy yuur gi da koy mu ne soo ko jëfandikoo dana yemale ci yaram ba la fa ëpp ak lu fa manqué muy diabète wala tension wala sommeil bi soo koy jëfandikoo du ëpp waaye du manqué mu ne waaye soo koy jëfandikoo macha allah dafay régénérer tout le cellule morte dafay dekkalaat lépp lu dee ci biir yaram macha allah mu ne boo koy jëfandikoo daf lay rayal doomu jàngoro yi nekk sa biir yaram macha allah muy micro moo tax ñu ne antibiotique naturel la mu ne waaye boo koy jëfandikoo bu fekkoon say nelaw dafa ëpp. mu jàppale la mu yemale ko bu fekkee say nelaw dafa manqué mu yemale ko macha allah moo tax ñu ne somme de fer mu ne waaye ci olof boo koy jëfandikoo mu ne dafay yokk say soldaari yaram fexe ba jàngoro dugg sa yaram macha allah ndax fii nag ci Touba Mbacké tey ay millions yi millions yi doomu aadama ñoo fi dajee kon lépp li nga xamante ni antioxydant la nga xamante ni daf lay musal ci feebar yi ñuy jëlee ci lu ñuy nooy macha allah ak Forever Living Products soo koy jëfandikoo tey danga ci mucc lu waaye mën a indi doo doo ca jot yow it loo yor doo ko jox keneen macha allah moo tax ñu ne antioxydant dafa am solo tey vitamine C fii naaj bi tàng na coono yi bëri nañ tension yaa ngi yëg tension yaa ngi wàcc poussière bi bëri na pollution bi bëri na sooy jëfandikoo produit macha allah dana yemale tension bi dalal sa xel dalal sa yaram macha allah li nga bëgg nga am ko ci sa yaram. ndax feebar ñaar rek la ëpp wala manqué soo ëppalee problème la soo manqué lee problème la loolay waral tey ngay lekk mu bañ a rees ngay ballonné wala ngay seere loolu problème intestin la wala formation yooyu yëpp tey macha allah produit boo ko jëfandikoo mu jàppale la ci ba boo lekkee mu rees macha allah yeneen yi mooy problème cardiaque bi tey boo xoolee coono yi ah naaj bu tàng yi ah, yenn yi ñuy dund muy stress yi ak naqar yi Euh, yooyu yëpp tey boo jëfandikoo produit mu dalal la ba nga xamante ni sa rythme cardiaque dina normal surtout macha allah mais dina protéger sa rein yi ba muy segg normal macha allah loolu produit yooyu nag ñu mucc ay yooyu nga xam ne Foreo defal na ci lu man ñaar téeméeri produit ak juróom fukk nga xamante ni am na ci biir yaram am na ci biti yaram cosmétique alimentaire ndax doomu aadama kat yaram kat dañ koy suuxat comme ni ñuy suuxatee gàncax. na ngay jëlee ndox di ko sotti ci gàncax noonu lañu war di suuxatee yaram macha allah kon am nañ ay saabu yoo xam ne soo koy sangoo lépp luy jafe-jafe dara dootoo ko am ñu am ay diw yoo xam ne soo koy diwoo macha allah mu setal sa der ba pare waaye mu aar ko macha allah amul dara li nga xamante ni chimique la luy di luy soppi yaramu doomu aadama macha allah waaye ñu am ay déodorant yoo xamante ni euh, soo koy jëfandikoo amut alcool amut sel d'aluminium ndax su dee alcool soo sa déodorant yi nga xam ne dafa am alcool ak sel d'aluminium soo koy jëfandikoo di nga ñàkk doo ñàkk waaye doo xeeñ macha allah ñàkk ñaq boobu moo tax ngay xeeñ dafay bloqué sa ñàkk bi te ñun suñu déodorant bi mooy benn déodorant bi nga xamante ni moo am ci àdduna bi bi nga xamante ni macha allah amul matière boobu ñaari matière yooyu muy alcool ak sel d'aluminium moom kese la ci àdduna bi macha allah moo tax soo koy jëfandikoo da ngay ñàkk da ngay transpirer waaye doo xeeñ anti ñàkk bi day ñëw mais doo xeeñ te ñàkk a ñàkk googu ngay ñàkk a ñàkk ci yeneen déodorant bi te li war a génn génnu transpiré woo normal ñàkk transpiré góor mooy waral ngay am infection ci say poqotaan ngay am infection ci say poumon say say ket waaye moo ñuy kéréel itam li nga xamante ni moom la ñuy wax cancer du sein ndax infection yi bu duggee rek problème mu ween ñëw problème mu faar ñëw macha allah doo tax tey da ngay gis sax am na ay góor yuy développé cancer du sein te boo ko na ci li nga xamante ni alcool bi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci suñu yaram macha allah kon bu déodorant bi soo koy jëfandikoo amul loolu moo tax tamit macha allah mu baax ci côté yëpp muy suñu déodorant bi am nañ ay pâte dentifrice yoo xam ne soo koy jëfandikoo amul lépp luy bico dentaire dootoo ko am moo xam problème mu gémmiñ buy metti gémmiñ buy xeeñ et tout allah ndax pâte bi ñu ngi ko defaree aloe vera ak calyplis moom la ñoo bu teel macha allah ak propolis bi nekk ci lem antibiotique bi tax lem da faj te wax suñu borom wax ne lem day faj tout mérite macha allah kon antibiotique boobu moom lañu defaat ci lem bi macha allah waaye ñu def di fleur ay mant ak fleur de orange mu nekk lu naturel nga xam ne soo koy jëfandikoo gémmiñ bi du am benn jafe-jafe macha allah kon loolu lee mooy li nga xamante ni ci tënk ci en résumé mooy produit yi ak tey collagène dafa xew Forever am na ak collagène boo xam ne 3000 mg la ko defee amul kenn ku ko defar ci àdduna bi collagène boobu soo koy jëfandikoo am na ñu def ci nag L-arginine def ci lithium def ci calcium def ci magnésium am mu am fer am xeeti vitamines yi ci yi ci war a nekk yëpp ñu boolee ko ci macha allah soo jëfandikoo mu nekk 100 pour cent nga xamante ni da lay régénérer macha allah lépp luy ras lépp luy yàq lépp luy xol lépp luy saddit macha allah lépp luy dar macha allah mu aaral la ko nga delluwaat xale macha allah alhamdulilah. ndeysaan dafa butéel waaw sax sëñ bi euh, képp fii ci Touba képp ki nga xamante ni soxla nga produit soo wootee incha allah Euh, dinañ loo ko fexe ba nga jot ci fi nga dëkk ci Touba incha allah euh, dinañ dañuy def livraison à domicile ñi nga xamante ni tey mën nañoo ñëw wala ñu yónnee suñ ñëwee ñu jox leen ñi nga xamante ni mënuñoo ñëw wala coono dab na leen ak fuñ mun a nekk suñ woo suñ ñu woowee incha allah dinañ leen ko livrer fa ñu dëkk bu soobee yàlla euh, tey jii ci li nga wax nii rek wax màggal ne coono comprimé bii ñuy wax absorbance macha allah Euh, daanaka euh, fan li tax ñuy jaay jamono ji moment bi yëpp ci moom lañ daaj di pilpu ak fàbbu bi macha allah ñi fiy jaar di wax coono wala bopp bi métti wala miir ñëpp macha allah dañ leen di jox ba pare na leen toog leen ngeen dal suñ toogee 10 minutes ba jàpp 20 quinze minutes su ko defee li leen doon métti sedd wala mu dal su ko defee ñu doo ko wax li ngeen ma jox ñaata la te lool it ay xéwal la loolu yëpp dañ koy barkeloo ci màggal gi ku fi dugg rek ñu jàppale la bu dee miira la fi indi bu ñu la joxee nga dal boo paree boo amee nga jënd macha allah boo amul da nga dem di jënd ci pour ñëw jënd. waaw macha allah numéro yi moo nekk nii fii ci Touba euh, ndey macha allah boo boo ñu bëggee woo mën nga ñuy woo ci 77 553 99 53 77 649 21 69 77 431 macha allah 28 44 78 macha allah. Euh, 777 748 64 51 macha allah 78 386 98 93 78 444 64 42 macha allah 77 719 86 87 macha allah numéro yi yëpp boo ñu ci woowee fii ci sa ci ci Touba. équipe bi nga xam ne ñu ngi ànd nekk fii ci Touba dinañ la dinañ la rechante defee ndaw ñaa fi euh, mair yaa fi pa yaa ngi fi ko boo ñu wooyee rek danga ngi jot bu soobee yàlla alhamdulilah jërëjëf soxna Mame Moussa Sakho suñu manager Safir bi suñu manager bu ñaaw bi macha allah nekk manager boo xam xamante ni vraiment développé na Sénégal développé ci àdduna bi parce que barki dem xam na ne suñu manager bu mujj a génn mu ngi génn Canada xam ngeen loolu firnde na liggéey bi liggéey international la fii Sénégal développé ay mbokkam ñu nekk foofu ba nekk ay manager te xam ngeen garaatu manager lu rëy la kon jërëjëf vraiment dañ lay ndamoo dañ lay ndamoo ci Sénégal mais aussi dañ lay ndamoo ci Afrique dañ lay ndamoo ci Forever vraiment plus de 18 voyages yoo xam ne def na ko ak Forever bi mu duggee ak léegi kon loolu firndeel na ne ñëpp mën nañ def forever forever nag liggéey boo xam te ni liggéey bu xéewale la ñu bëri nag ñàkk xam forever moo tax boo leen ko te a nekk itamit di nga ko def ndax maam Bousso bu dee nekk Italie moom nekkoon na Italie xam na xam na bu fekkee ne Saloum Jide ñëpp xam nañ ko yaakaar naa moom nekkoon moo nekkoon ci Saloum Jide doon fa liggéey maam Bousso nekkatu ku ñu présenté su ñëwee forever def lii dañuy xam ne kon liggéey la boo xamante ni macha allah forever moo àgg foofu donc forever maam Bousso yóbbu na ko fa sori mais nag dañu ànd ak suñu naatangoo yu mag yoo xam ñoom lañ nekkal fii ci bureau bi suñu imam nekk koo xam ne kilifa la bi mu nekk imam Youssouf Sow mu nekk koo xam te ne manager bu mag la day développé Sénégal di développé Italie ñu jox ko kàddu gi bu ko defee mu am yoo xam te di nekk ci jàllale ak groupe bi nga xam ne moom la àndal ñëw fii ci Touba kon sëñ imam bisimilah aouzu billahi min ashaytan irajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi alaaxiri wa alaa aalihi wa sahbihi ajmaïn mbokki Forever mbokki seen info ñu ngi leen di nuyu di leen te di leen ndokkeel ci bés bu màgg bi ñu daj ci dëkk bu dëkk màgg bi muy bésu suñu maam Cheikhul Khadim Cheikh Mouhamad Bamba radiallahu taala anhu ci bés bu màgg bi nga xamante ne macha allah moom la yàlla dogal tey ah ñu fekkee ko ah, mu nekk bés bu màgg boo xamante ne ndam la ñeel képp kuy jullit waaye ndam la aussi ñeel képp koo xamante ne ah, nit ku ñuul nga waaye ndam la aussi rawatina ñun waa Sénégal waaw suñu ndam la mu nekk bés bu màgg màgg màgg ci ñun bés bu rëy ci ñun bés boo xamante ne toujours bu accès wala bu jublusee macha allah ñun ñëpp dañu nekk ci cant yàlla da gën sant yàlla macha allah mu nekk lu am am solo ci peuple ci côté bu nekk waaw macha allah ñu ngi ndokkal ñëpp da ñaanal ñaanal lu jàmm macha allah waaw ah ñun nag yàlla dafa dogal comme ni ko maam Serigne waxee rek a ah, dañu ñëw fii ànd ak suñu ménagère ah, Saydatu Ajaratu Maam Bousso Sakho muy safir ménagère boo xamante ni ñu ngi koy ndokkeel ci grade boo nga xamante moom la ko yàlla defal macha allah di ñaan yàlla mu muuroo ko ak njabootam ci jàmm ah, yàlla ah, def ko mu ànd ak wér ak wér lig tal mu yàgg ko jëriñoo toog ba am téeméeri at ànd ak wér ak wérle loolu la ñuy ñaan suñu borom subhanahu wa taala ndax ah, ajab sama bu sa nit ku baax la macha allah ah kuy jàppale nit ñi la lu nekk koy wax parce que dafa teew waaye loolu taxawaayam boo xamante ne képp ku jokkoo ak moom xam nga taxawaay boobu gis nga ko ci moom képp koo xamante ne forêt da liggéey ci forêt boobu sa bët bu xonqee a ah, man nga xalaat ñu bëri de waaye fa fa fa sa soxla ajo fajoo li ci gën de bëri ajota maam bu soom ci lay mujjee ji bu àggee ci moom mu lijjanti ko kon nag ku mel ni kooku bu ñu ko amee a ah, lu ñu mën rek ci li ñu jëkk def mooy ñaanal ko fu ñu toll da ko ñaanal mu yëg ko mu ñàkk ko yëgal mu ñàkk ko yëg ñu fu dañ koy ñaanal yàlla sàmm ko sa yàlla bu ko bu ko sàmmee ñun la ko sàmmal waaw ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu sàmmal ñu ko macha ñu bokk nag ñëw fii ci dëkku màgg bi de waxtaanee euh, Forever Living Products International comme ni ñu ko waxee rek man ma Mamadou Lamine Sow lañ may wax euh, maa ngi duggee Forever depuis 2012 euh, laa ci dugg moom ajatu maam Bousso mi moom mu duggal ci Forever waaw parce que man lu ma ko fekk mu nekk rek du ma ci am hésité du ma laaj su ma suñu ma nee duggal damay dugg waaw lu ko waral nag mooy yàgg xamante dëpp cosaan ñun Forever boolewuñu dañoo xamante bu yàgg bokk nekk Europe fu nekk ñu bokk fa nekk macha allah bon xamante bi yàgg na du léegi ñu nekk nag ci société boo xamee ne dafa am importance loolu ci àdduna bi parce que Forever dafa yëngu ci ñetti pàcc muy wàllu wér-gu-yaram ak wàllu koom-koom ak wàllu liberté man ba ma ciy dugg liberté moo taxoon ma dugg ci parce que boobu maa ngi Europe di liggéey nekk Italie di liggéey waaye bi ma ñëwee ba ma laajee fekk mu nga ànd ak ajatu maam maam Jaar ak moom ci boppam ba ma leen laaj loon ne ñetti mbir la forêt di liggéey mooy wàllu wér-gu-yaram ak koom-koom ak liberté man liberté moo tax ma dugg ci forêt bi macha allah mu nekk entreprise internationale boo xamante ne li ci nekk ci njëriñ mënuñ suñu làmmiñ loot na ci tudd ko waaw parce que li ci jóge ci eh, ndimbal doomu aadama bés bu nekk da ngay gis lu bees loo xamante ne macha allah taala ah loolu benn bu ci nekk rek mën naa tax nit ki war a dugg forêt ba parce que mooy wér yaram ak am-am ak ñetti mbir yooyu mooy yi nga xamee koo gis muy daw daw daw di dama ko ñëw looloo tax ngay sonn waaw fexe ba nga wér fexe ba nga am tal sa poche mais nga libre liberté boobu nag léeg moo jafe ñetteelu point boobu ci fore ba nga xamante ne fore ba donc moo koy sos lay wax ci àdduna bi moo koy defal nit ñi loolu bu ko nit ñi xamoon macha allah ñëpp dañuy daw jëm ci forêt wa rawatina ci jamono ji ñu toll nii nga xamante ne suñu suñu jarbaat yi suñu doom yi suñu euh, mbokk yi nga xamante ne comprendre nuñ ñoom ñëpp ñu ngi daw jëm Europe da ci gaal yi ñii ci des ci àll bi macha allah ñii da dem di tag ci ay place yoo xamante ne c'était pas l'informe euh, absolument intention dem ci àll bi tag fa taxutoon seen ñu kon tey ñun sa ñoon képp koo xamante ne yaa ngi dund fii ci ci euh, Sénégal ci peuple ci xale yi ñu fexe ba jege fore forever parce que forever dañuy wax ni fii la solution bi nekk képp koo xamante ne yaa ngi seet luy régler say problème da nga ñëw forever parce que ñett yi ma leen ci wax muy wér-gu-yaram ak am-am ak ak liberté fii la am ci fore forever te mu nekk loo xamante ne boo ci duggee dafay sax bés bu nekk du wàññeeku du dellu gannaaw kon dañuy yemale foofu suñu wax rek parce que dañuy wax ni li duuf ci nag wi yëpp xëju ci kaw bi kon dañuy bàyyi kàddu gi. maam Serigne Sylla mu jox keneen kàddu gi ñu ngi leen di nuyu di leen euh, sant di leen gërëm di leen ñaanal màggalu jàmm di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala bu fekkee bañ fekkee déwén jàmm fekk ñu nga ànd ak wér ak wérle ak tal ak xéewal toujours te ñu ànd ak forewo asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ah jërëjëf suñu imam jërëjëf oustaz yàlla na yàlla nangu ñaan yi vraiment merci beaucoup yaa ci diggante bu gàtt tënkal na leen ci histoire am ak forewo loolu nag dal na xel rawatina ndaw ñi nga xam ne ñu ngi jël yoon bi pour génn rek yaakaar naa lii mu wax moom mi nekkoon Europe développé activité bi ànd ak soxna Mame Bousso ñu koy développé Sénégal yaakaar naa loolu war naa dal seen xel vraiment lii dal na xel lool macha allah macha la ci forever te wax ji buy wax day ànd ak xol ànd ak mbégte ànd ak yéene boo xamante ni kenn mënu koo xam te yaakaar naa nag dañu wax ne nit bu fekkee ne dox na lu mën ñeent fukki at kooku wax war nañ ko mën a que li muy wax nekkatu ci waxu bakkan mais wax la boo xamante ni mu dund la parce que expérience boobu daf koo am kon imam wax dëgg yàlla vraiment merci beaucoup parce que yaa ngi ñuy encouragé yaa ngi ànd ak ñun yaa ngi ñuy aussi kon dañuy jox suñu kilifa suñu sëriñ soxna Astou mi nga xam ne wax dëgg yàlla nekk gi nekk moom ci Touba rafet na macha allah dañ koy wax mu ñaan ay kàddu yoo xam ne kàddu ñaan lay doon parce que ñëw na ci jataay bi te jataay bu mel nii buñ ko amee surtout suñ baara nekk fii wax dëgg yàlla ñu nekk ci màggal Touba ah doomu sëñ baar di surtout sëñ baara encore quoi ñëw fi tey jii wax dëgg yàlla ci jataay bi dañuy koy tàllal loxo mu ñaanal ñu ndax li ñu samp tuubaa nii moom dafa nekk koo xamante ni moom ci yéenam ak bëgg-bëggam moo tax mu am parce que nag fii la dëkk tuubaa nekk Dakar waaye nag euh, bëgg na dëkk bi lool ndax waaw dëkk bi moom bëgg na ko ndax bëggum ko bëgg moo tax jàppale nañu lépp loo xamante ni moom la ñu wut ci dëkk bi tey jii macha allah kon soxna Astou kon ñu ngi lay jox kàddu gi. ndax lépp wax dëgg yàlla moom kàlla macha allah ñaanal daal ci barke borom màggal gi yal na ngeen am lu kawe seen njort ci barke seen Touba ñu koy dégg ci entreprise yu mag yi daal yal nañ ko fay dégg te màggal gi yàlla buñ suñu jël bu màggal yal yokk ba yëg ko yal na ngeen daal bu ngeen réccu daal lu ngeen fiy ñëwee yal na ngeen ubbi ay entreprise yu bari ci Touba ñu leen di dégg fu ne mu ànd ak jàmm ak salaam ci barke Xaadim Rasuul barki sëriñ Fall ak sëriñ Baara yooyu moom tuwaar fa kàlla macha allah ndax eh, maa ngi woo suñu mbokk mbàkki mbàkki yëpp ñu dugg ci ci dugg ci bisimilah maa ngi barke yonent bi barke sëriñ Touba te xam naa ne garab yi moom tuwaar fa la moom am na njariñ moom macha allah ndax képp rek koo ko jaay day bëgg nga dolli ko am na njëriñ lool macha allah. vraiment jërëjëf jërëjëf soxna sant nañ bu baax a baax ci ñaan yi bu baax a baax ndax lii moom la ndax taaral nga jotaay macha allah. bu ñu ñëwee Touba suñu day ak bala jërëjëf yàlla na yàlla guddal fa yoral cër yi itamit li nga am yéene ci ñun it ñu àggale ko incha allah euh, kon dañuy jàll ci suñu benn manager bu mag boo xam te ni ñoo ànd fii aussi sekk madame Sagna nekk manager boo xamante ni macha allah jàmbaar lool lool parce que bi ñu demee Mbour di fa liggéey dafa ànd ak ñun Mbour ñu dem Thiès mu ànd ak ñun Thiès ñu ñëw Touba itam mu ànd ak ñun aussi di développé bu baax a baax di développé Gambie aussi nekk manager bu mag boo xamante ni macha allah vraiment am na espoir ak forever kon moom dañ koy bàyyi rek mu jaan sànni ci ay kàddu ngir mbégte bi ñu àndal fii Touba yeneen FBO yi ñu àndal nag bëri nañ waaye comme euh, waxtu bi dafa kii te ñoom bu ñu bu ñeen ñu waxee yóbbaale ñu ci des kon dañuy wax soo soxna madame Seck fàtte aussi itamit suñu seen bii nga xam ne moom la ñu àndal muy seen euh, seen info nekk seen boo xam te ni seen international la boo xamante ni ñi ñu toogee fii tey di wax am na ñu nekk bitim réew ku mën ne suñu xarit euh, Mouhamed Sakho nekk koo xamante ni kilifa la Mountakha Mouhamed Sakho nekk koo xam la foofa di jële ay nit États-Unis d'Amérique di leen yóbbu Makka ci loo xam ne lu ñu xam la liggéey bu rafet boo xam ne mu ngi koy liggéey kon su taxawee tey fii ñëw ànd ci màggal gi ngir journal bi nga xam ne moom lay jàllale ñëw seet suñu mbégte mu rëy rëy rëy la ñu am ci moom di ñaan soxna si itamit nga ñaanal lañu ko bu baax a baax a baax parce que ñoom ay jàmbaar lañ macha allah ànd ak seen daraame mii nga xam ne moom xam naa ne bay woo ñu xaarloo ko affaire xéewal yeeg yooyu mu xaar ko ndax mënta ñàkk ndax xam naa bu taxawaay a baax daal kon dañuy jox tuuti rek ci auzu billaahi mina seytaane rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ah, nuyu naa leen bu baax ziyaare leen di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di rafetlu aussi seen teewaay macha allah di ci kontaan bu baax a baax je me maa ngi tudd Aminata Seck madame Sané di nuyu sama borom kër bu baax de passage di ko nuyu di ko sant di ko gërëm bu baax a baax ah, macha allah. dama leen di ñëw nettali sama histoire ci Forever ak lu ma indi ci Forever ak xéewal yi ma yàlla defal ci Forever maa ngi sant yàlla bu baax Forever Living Products euh, Lalla bu ndaw Njaay moom ma ko xamal ñëw mbuur macha allah keroog ba mu ñëwee waxtaan seeg sama borom kër ci la ma ca dugal ma adhéré ci bis bi macha allah man nag wàllu koom-koom moo ma fa indi woon dama ñëwoon bokk ci Forever pour liggéey am dara donte maa ngi doon liggéey mais d'après ni ñu ma ko expliqué ñu ne ma liggéey boo mënti liggéey rek mën nga ko caa boole dalay yokk sa koom ma jàpp ko di ko liggéey boole kook la ma daan def mais ay weer yu néew laa dawal rek ma gis ne nag liggéey bii lim may jox liggéey bi ma nekkoon joxuma ko te coono ba may daj fale daaw ma ko daj fii ca laa arrêté nag liggéey boobee concentré wu ci fore ba en 2012 fin 2014 yàlla sunu borom ci kàttanam ak mbaaxam ah ma qualifié manager dawal quelques moments maa ngi doon faju nag parce que maa ngi xaw a yàgg ak sama borom kër amuñu bant ma fajoo ko fu ne fajoo ko nu ne ci hôpital yi ak tamit ci faju nit ku yàlla def ah bi ñu demee ci hôpital yi nag ba ma jot a xam lan moo ma téye lan moo nekkoon sama gàllankoor euh, ci laa waxtaan ak docteur bi mu ne ma nag dañ lay defal traitement fii ak deux mois wa ilaa ñu defal la opération ñu dindi ma ne ko ah, mu ne ma waa ma ne ko ah, man de am na ci compagnie bu ma bokk ñu ngi defar ay produits aloe vera euh, wax dëgg yàlla Forever Living Products produit yi baax na li ma ci jot a consommé gis naa ne baax na mais comme ñu ne day faj te lii nga xamante ne moom la ñu wax ne moom moo ma gàllankoor ñu ne carrément euh, Forever am na produit yu ci baax kon danga may bàyyi nag ma dem jël samay produit su ma consommé danga may jox rendez-vous ab diir. su ma su waxtu woowu jotee ma dellu siwaat nga xoolaatal ma sama yaram ah loo ci gis rek ba tey nga wax ma bu jaree tamit ma jël sa traitement ma jël sama traitement mais bala maa laal say garab danga may bàyyi ma dem consommer samay produits docteur Béa maa ngi koy euh, ziar moom itam mu nga nekk ca onkaat Mbour hôpital Sœur Béa nuyu naa la bu baax macha allah moom itam mu waxtaanal ma lu bëri conseiller ma ne ma amul problème léegi dans deux mois na nga dellu si waat daal di may bindal ay kayit jox ma ma dem garde écho bi ma xamante ne moom laa demoon defi ji dem ak moom waxtaan ak sama borom kër yàlla dogal ma dem facturer produit yi dellu sama kër commencé jël produi une semaine après yàlla dogal ma jóge fii dem Gambie parce que maa ngi ko doon liggéey fii di ko liggéey Gambie comme borom kër gi moom Gambie la toog këram fa ne ma daal di dem Gàmbi ndeke bi may dem miracle am na doon loo xamante ne lu ma bett la lu ma neex la lu ma bëggoon la yàlla dogal ne ndeke maa ngi dem une semaine après bi ma jëlee produit bi ci laa nekk dem voyage nekk di feebar dem hôpital ñu ne ma ah soxna si dangaa yor dara de ma ne ah est-ce que juumuloo mu ne ma ah déedéet test bi daawul juum man daal mënuma nangul lii docteur bi ma ne ko dama amee kyste daal di koy won kayit yi yam nga xamante ne moom laa jële woon ci hôpital bi Mbour wan ko ko moom Gambie sama alaaji la moom docteur boobu rakku suma borom kër la alaaji Tane maa ngi koy ziar ah moom itam mu daal di may bindal kayit ne ma demal hôpital Hamadia soo demee ñu xoolal la encore bi ma demee ñu defaat même chose foofu defaat écho jox ma résultat yi ma dem le lendemain yóbbu ko bi résultat yi génnee ñu ne ma ahankañ dëgg la kay da nga yor dara affaire bi doon lu ma yéem yéem a yéem ma ne ah man forever ay mbiram nu ma mën a gaawe nii nu ma mën a demee nii te man maa ngi doon xalaat ne xëy na su ma naanee garab gi dina am lu génn ci man loo xam ne mën naa ko xool ma ne lii la xëy na dara dina génn ci man loo xam ne xëy na mu jaaxal ma wala mu tiital ma mais yëguma ko benn yoon gisuma ko itam benn yoon wax dëgg yàlla loolu doon loo xamante ne nii man neex na ma bokk na ci li ma gën a neex ci sama àdduna doon ay kéemaan yàlla yoo xamante ne nii mu yàlla mooñaaleel nañu ko ci sunuy produit ma ne ah man Forever gi lan moo ma fi indi woon naa liggéey am xaalis def ci sama poche teral samay wayjur moo ma fi indi ah ñëw naa ci liggéey bi dem naa ba commencé am nag xaalis bi di commencé yëg neex gi ndeke lu ko gën a neex mi ngi fi ba macha allah tey jii sama doom yaa nga ne ca kër ga. macha allah macha allah kontaan naa ci bu baax sant ci sunu borom xale yaa nga ca kër ga macha allah maa ngi ciy sant yàlla bu baax ah di ci woo aussi sama morom jigéen yëpp naan leen nag Forever ngi fi ku ci bëgg wàllu wér gu yaram Forever dina la ko defal. ku ci bëggu faju ci wàllu taxawaay Forever dina la ko defal li foore Forever di def buñ toogoon fii di ko wax dinañ fi fanaan wàllu koom mi ngi fi wàllu wirgu yaram mi ngi fi parce que nit tey ji mënuloo dem te wéruloo doo tala liggéey te wéruloo kon nag nañu wér ba pare waaw bu wéree ba pare nag amal koom waaw na poos yi wér bu yi wéree rek dëkkaay dëkkuwaay yi day daal di neex ma di ci woo ñëpp nag macha allah naan leen Forever Living Products mi ngi fi surtout jeunes yi comme ni ko tonton waxee bu ñu jàpp ne liggéey amu fi liggéey am na fi nañuy ñëw ànd ak Forever Living Products liggéey jëm ca kaw ca kanam macha allah gërëm naa leen sant naa leen bu baax a baax. merci beaucoup madame Sané merci beaucoup Soxna Aminta vraiment kàddu yi am na solo thème ak bi itam am na solo euh, Forever loolu moo tax mu neex parce que li nga dund moom ngay wax moom ngay partage ak say nit. te loolu itamit mooy liggéey bi ndax Forever boo ci duggee ñaan na jëndal nga naan defar sa yaram soo naanee sa yaram ba mu baax ñu ne la yaatal ko sa biir bokk soo ko yaatalee sa biir bokk mën nga cee am lu bari ñooñu itam yaatal ko mooy xéewal yooyu noonu comme ni nga ko axee moom bi mu ci dugg wàllu xéewal moo tax mu dugg ci am ci koom-koom am ci xaalis macha allah te xam ngeen ne jigéen dafa soxla indépendant parce que jigéen lan moo tax mu soxla woo ko liggéey bi mën nekk état boo mën a nekk rek ak jamono boo mën a nekk rek mën nga def business bi nga xam mooy Forever Living Product ndax da ngay jëfandikoo mu baax nga jox sa mbokk léegi na ci loolu la jox suñu manager bu mag bi muy Mame sa Sakho mu wax leen ci wàllu xaalis bi ndax ku wax euh, lu lu mu pour mu neex nag dëgg-dëgg il faut nga am xaalis poche yi bu amee dara day neex dina tax loo bëgg a def di nga ko def stress bi dana gën a wàññiku ndax fii mënoo def dara te amuloo xaalis ñu wax leen nag ndaka nga mën a àndeek forever pour mën a am sa wir gu yaram ba noppi mën ci am koom-koom ba tax adduna bi itamit ñëpp di doxal forever nga gis ñoo xam te ni yoroon nañ ay entreprise gis naa entreprise yi kat li ñuy fay ci taxe ak ay kii dafa cher ñëw ne fa ñukk jël forever ko développer parce que bu boobaa nga jàppale ay nit te moo gën a moins cher ne dafa yaatu ci adduna bi fépp mën am ay nit yu nekk bitim réew nga jàppale leen moom am na ci expérience parce que jàppale na ay nit yoo xam ne nekk manager kon soxna Mame Bousso ñu ngi jox kàddu gi merci jërëjëf alhamdulilah macha allah alhamdulilah ala kulli macha allah sëriñ ñu ngi lay gërëm kàddu yi rafet na soxna si ñu ngi wax amiin ci ñaan yi yal na ko yàlla nangu ci sa barkeb maam macha allah euh, sëriñ comme ni nga ko waxee ci koom-koom bi ndax ku wax wér-gi-yaram ne koom-koom parce que dañu wax forever dafay xeex ñàkk ak wérati macha allah comme dafay xeex ak ñàkk ak wéradi looloo tax sax nag borom entreprise bi ni mu loolu la ko def daf na def na la plus mal du monde mu ne c'est le manque de keneen ki ne déedéet waa feebar nag kon boo ñàkkee am xaalis problème la mais boo amee xaalis ñàkk it boo amee boo ña boo wéree am xaalis problème la mais boo amee xaalis wéroo it jafe-jafe la kon ñaar yooyu xalaa kuliyaal mënta bu ci manqué rek problème taxaw na macha allah. Euh, comme ni mu ko waxee société bi loo ko jox rek mu delloo la ko lépp li ngay mébét ci sa àdduna rek macha allah boo àndeek société bi yàlla mën na la koo yombalal moo tax moom mu tëral ko ba pare ne votre rêve ak notre plan maanaam seeni mébét ak suñuy doxalin plan votre rêve yooyu nag comme li ngay rêvé kenn ku nekk nag say mébét yaa ko moom kenn du la ko jox yaa xam li ngay mébét am na ñu mebet lu bari am na ñuy mébét lu tuuti macha allah. tey ki ne man million laa bëgg par weer ak forever su ko su wad su ak doxalin forever mën na ko am ku ne man cinq cent mille laa bëgg par weer it ak doxalin forever na ko am waaye ki ne ay cent million laa bëgg forever par weer it ak doxalin forever mën na ko am ndax moo ngi am na fi ndax tey am na ñoo xamante ni tey ñu ngi liggéey ñu ngi fayee ko plus de 400 millions francs CFA par weer ci forever gi pourquoi pas ñun pourquoi pas ñun léegi ñun suñu amoon tey Sénégal boo amoon tey 40 personnes yuy fayeeku 400 millions par weer 100 millions par weer 300 millions par weer xamal na ña ca gànnaawam lu ëpp 1000 personnes am ci gànnaawam ci di di fayeeku ay 1 euh, million 2 millions jëm kaw. kon émerger bi ñuy wax émerger Sénégal émergent bu ñuy wax bi ñuy wax ñun ak Forever mën nañ koo émerger tey euh, Italie gi ma nekkoon am na borom entreprise yoo xamante ni tey da ngay gis ko euh, borom entreprise boo xamante ni dana nekk yore lu mat 100 personnes 200 personnes foo di ko di fay employé leen di liggéey. di leen fay yore ay machine usine ay usine lan yor yor ko fa di fay nit ñi di di yore ay emploi weer bu jot ñu leen fay biñ xamee Forever dañoo jaay seeni entreprise ñoom ñooñu ñoo bokk Forever waxuma la dañoo bokk Forever waaye seen emploi yëpp dañ leen a dañoo waxtaan ak ñoom ñu ñoo adhéré Forever ñu nekk même réseau di liggéey nem ñoom tey ñu ngi ci plus de ay cent millions jëm kaw par weer macha allah ñoom la ñuy eh, eh, eh, seen histoire bu ñu koy nettale li ñuy wax neneen bu weer deewaan ñoom weer bu entre le 25 ba la 5 fay fay fay fonctionnaire yi ñuy fay rek ah seen seen seen salaire yi calculer ba tiré ba ak euh, bu ñuy liggéey matière première ba ñuy jënd usines yi ñu yore woon et tout coono bi ñu ci doon daj tey nee nañ ñu ngi koy am lu oto lañ ci doon am ñu ngi koy am lu ëpp loolu fooree fa macha allah ak seeni i ñooñ ñañ àndatoon da liggéey da macha allah euh, dal di responsable yi ak coono bi ñu doon am ak stress yi ñu doon am. amuñu ko ci ak Forever Living Products mbir la moo xamante ni suñ borom moo ñu ko jagleel ah mu ñëw ndax gàncax la dañ koo bay ci suuf si léeg-léeg ñu naan fu ndoxalin bi nu muy demee wala ak est-ce que sell na wala leen wala wala wala leew na leew na ndax suñ borom moom mooy wax ne maa da ngay ji benn pepp macha allah mu sax nekk ab gub gub wu nekk ay doom ay ay ay ay pepp ñaata pepp la mën a génnee benn pepp ba saxoon macha allah te loola lépp dafay ànd ak barke kon noonu la ko suñ borom waxee ko ci téere boobu di alxuraan macha allah noonu la Forever di doxalee ci lii ngay duggee macha allah maanaam 266 800 nga créé sa entreprise 365 000 nga créé sa entreprise fileeg 1 an 2 ans entreprise boobu mën na laa jural ay 30 40 million par weer 100 millions par weer waaye mën na laa jural 1 million wala 100 000 francs par weer des na ci yow. maanaam sa bëgg-bëgg sa ambition sa yaatu sa yaatu xol sa yaatu dënn rek. ci la la Forever di fay macha allah loolu kon euh, lépp lu ñuy reefe rek macha allah Omar euh, euh, muy voyage xam-xam mooy voyage tukki mooy xam-xam ndax borom xam-xam yi dañu wax ne nit mën naa tukki mu nit mën naa yër juróom-ñaari téere maanaam xam ko mokkal ko nga tukki benn yoon ëpp ko xam-xam wala ñaar yoon ndax lan la li nga doon jàng moom ngay dem dund moo tax génn dafa baax macha allah Forever def plan tukki nga xam ne at mu jot dina def ñaari voyage ci at mi ci ñaari continent yu macha allah ci ñaari continent yi ci bi cinq continent la kon yow boo amee juróomi at at mu jot nga dem ci ñaari continent xanaa bu yàggee nga ne def naa tour du monde macha allah moo tax 2012 ba léegi dans 2010 ba ñu duggee 2011 lañ qualifié suñu premier voyage muy Eagle Manager depuis boobu ba léegi macha allah yàlla ngi ñuy dimbale at mu ñu jot ñu bokk ci voyage yi incha allah di ko di ko ànd ak suñu borom kër nag mu xeet mu ñu jàppale ñu ci lool ñaanal ñu muy al imam oustaz Alioune Diop macha allah yal na yàlla yokk fanam ak wéral ay cëram macha allah ba mu fekkee njëriñu njabootam gi ndax lu dul njaagam nag moom mooy njaag moom ma ñaanal ngeen tàccul ma ko te ñaanal ma ñaanalal ma ko macha allah ndax fu ma taxaw rek moo ma fay dooleel ci ñaan waaye moo ma fay dooleel ci ànd ak man ci liñ nekk ñu bokk ci nekk ba yàlla yóbbu ñu fi mu ñu yóbbu macha allah kenn moom safir gi du man de moom la Aliou Diop safir waaye Mame Bousso moom animateur arts et la salaamaaleykum wa rahmatulah. Mame Bousso non ma la bàyyi Mame Bousso ko bàyyi non non ko bàyyi parce que Mame Bousso barki Dembo Ndiaye la jóge Bali te mu ngi ah, mu ngi préparé waat beneen boo xam ne mi koy waaj a def Mame Bousso forever yaakaar naa voyage yu bëree bëri Mame def na ko ak forever depuis 2011 ba léegi yaakaar naa lu mat fukki voyage ak nang lu bëri def na ko ak Forever ak Forever noonu lay doxee yaakaar naa itam plan li ñuy wax plan mérite Mambusa niveau 1 niveau 2 gagné na ko gañewaat ko gañewaat ko yooyu histoire la boo xam ne bu mu amul Forever il faut mu baaxee ko yeneen épi yooyu partagé ko ak ñun kon Mambusa waxal ñu tuuti ci voyage yi waxal ñu ci oto yi waaw ak Thierno Bonis yi ah Thierno Bonis waaw ah, Thierno Bonis boo liggéeyee ba année bi jeex cinquième euh, treizième mois forever daf koy fay kon Mame Bousso yaakaar naa yooyu gagné nga ko ay yoon yoon macha allah ànd ak sa groupe aussi ñuy liggéey ci loolu pour gagné ko donc vraiment wax nañu ci loolu kon soxna Mame Bousso. ah macha allah ay waay euh, pour man pare naa waaye alhamdulillah ba tey lépp xéwal la ndax euh, forever ni ma la waxee ci plan tukki yi ak ci xaalis bi noonu la defee na plan oto oto wala kër forever ne am na lu ñuy wax plan mérite ñu koy benn bi wala ñu ne surprime surprime mooy boo nekkee manager mais la ci fi programme programme boobu oto bi wala kër am na niveau 1 am na niveau 2 niveau 3 niveau 1 mooy 400 dollars pendant 36 mois mu ne la def ko ci oto wala ci kër yaa xam oto bi nga bëgg Forever di la ko fayal ci ñaar ñetti wala kër gi nga bëgg Forever di la ko fayal ci ñetti at niveau 2 mooy 600 dollars même chose la ñetti at la niveau 3 mooy 800 dollars ñetti at la fekk yaa koy am mu la koy fay ci ñetti at macha allah nga ne oto bi laa bëgg mu defal la ko ci. am nga amoo uh, am nga oto wala am nga kër nga ne soxlawuma ko mu koy dolli ci li ngay am parweer ci remise yi ngay am bonus si ngay am par weer mu ko ciy dolli parce que yaa ko moom loolu la ñuy wax plan mérite da nga moo tax ñu jox la ko macha allah. loolu nag alhamdulilah rabbil alamin bu dee niveau 1 bi am nañ ko ñeenti yoon bu dee niveau 2 bi am nañ ko ñaari yoon bu dee niveau 3 bi am nañ ko benn yoon macha allah sant yàlla ba mu bari alhamdulilah rabbil alamin uh, bu dee ci wàllu chairman ba ni séddoo bénéfice bi. su société bi at mi bu jeexee xaalis bi ciy dugg da koy xaaj ñett benn bi da koy def ci tool yi benn bi da koy jox euh, administration bi muy fay ña nekk ca bureau ba ñoom ca seeni matériel ak seeni payoor la waaye benn bi ñun ay partenaire ñun ñoo ko moom kenn ku nekk nag bu ñu ko qualifié nag kenn ku nekk ci niveau bi nga toll ci lañ lay jox sa wàll maanaam daal su ma la bëgg su ma déggee suñu ne chiffre d'affaires bii la séddale ci at mi foo ba léppam dafa leer dafa transparent su at mi jeexee ñu ne xaalis bii milliards yi la fóoree ba war a séddale yow xam nga ñaata point nga def daanaka xam nga ñaata nga war a am ci li ñuy séddale waaye ki gën a tuuti la daal dana am lu man ñaari million ak genn wàll ba ci ki gën a mag dana am million milliar ak lu tegal macha allah kenn ku nekk ci niveau bi nga toll ku def 1000 la la muy am 1500 la muy am ku def 3000 la muy am ku def 4000 la muy am ku def 20000 la muy am macha allah noonu lañ koy séddale parce que ci ci ci nombre de points yi nga def ci la ñuy séddale xaalis bi ak foo ak pays boo mën a nekk ak réew moo mën a nekk waxu duñu wax ne Sénégal lii la ñuy am wala France non non man ki man mi nekk France am 1500 ak man yow mi nekk euh, Amérique am 1500 ak yow mi nekk euh, Sénégal am 1500 yéenay tolloo loo leen di am macha allah ci niveau bi nga xamante ni ci xaalis bi nga xam ne moom la ñuy séddale ci ay voyage yow yow lañ la koy joxee macha allah alhamdulilah rabil alamina ren suñ wàll ñu ngi ko jox ñu ñu ko joxee ca Bali macha allah igle bi ñu ngi war a dem Pataya incha allah. ci weer wi ñu nekk ngeen ñaanal salaamaaleykum wa rahmatullah ah vraiment merci beaucoup voyage bi Mame Bousso leeral ko voyage bi ban voyage la ndax jógee fii dem Kaolack la wala jógee fii dem Gambie ñëw la ban genre voyage la leeral ñu voyage bi gars am xemmante a programmer am objectif yooyu noonu 5 étoiles yooyu leeral ñu ci tuuti. voyage yi 5 euh, étoiles la woon ay 2001 2010 ay 2001 2011 2010 c'est boobu. Euh, cinq étoiles lañ doon def mais foo ba léegi ci hôtel yi nga xam ne fa la ñuy dalale te voyage tout frais ñaari billet avion la lay jox yàgg sa jabar wala yàgg sa jëkkër wala ki nga bëgg ànd macha allah yeneen ànd mu jox leen ñaari billet avion parce que olof dafa wax ne lu amul seede baaxul même bu nekkee yow kese yaa liggéey sa ñaari billet avion la lay jox nga ànd ak kenn macha allah euh, loolu liñ si jublu mooy ba pare tout frais payé par Forever euh, su ko defee boo demee mu jox la sa argent de poche argent de poche yi mu commencé ci Euh, maanaam lu commencé ci cent dollars ba 4000 dollars macha allah mooy agent de poche kenn ku nekk soo demee niveau bi nga am ak nombre de points yi nga def ci lañ lay jox ci la sa agent de poche euh, ci lañ lay jox sa agent de poche loolu yëpp dañoo bëgg kenn ku nekk di góorgóorlu rek macha allah ndax pour nga voyage il faut nga créer ñuy voyage pour nga am ay million il faut nga créer ay millionnaires moo tax ba ku siis bokkoo waaye ku soxorit bokkoo suñ maam di wax naan ku ñaaw jikko it bokkoo Forever macha allah il faut nga rafet xol il faut nga yaatu dënn il faut nga rafet jikko macha allah ndax mënoo fee nekk lenn te andiwoo ko fi ñu fa nekk su ma taxawee yëkkati sama loxo ne man su si millionnaire damay yëkkatiwaat sama beneen loxo bii ne c'est créer des millionnaires su neew rek ma am ay millions macha allah. merci beaucoup jërëjëf jërëjëf suñu maam jërëjëf suñu Safir. wax dëgg yàlla vraiment wax ju responsable wax ju am solo macha kontaan nañ bu baax a baax a baax a waaye nag seen info xam ngeen ne wax dëgg yàlla liggéey bi moo rëy liggéey bi moo àgg foofu ndax forever ay dañu ñu bëri dañu gis aloe jàpp na jaayu aloe vera la bu ñu waxee marketing de réseau dugg leen ci internet bi ngeen xool lan mooy marketing de réseau ngeen xool li ñuy liggéeyee forever dimbale nañu bëree bëree bëree bëri ñu sens seen vie tey